asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen jaam ci seen seen leeral foot te ñu ànd ak yéen ci seen rubrique découverte ñu wax ci Mamadou Sarr mu nekk benn doom international sénégalais bi tudd Pape Sarr doomam muy def ay jéego yu am solo fële ci olympique de Marseille muy ci U17 mais laata loolee gars yi képp kuy gan ci page bi ñu lay ne bu fàtte abonné wu activé cloche notification bi comme ça nga bañ a raté suñu prochaine vidéo Mamadou Sarr na nekk benn doom international sénégalais Pape Sarr bi doon jouer milieu terrain jamonoy 2002 juste son petit rappel nag Pape sar mom bokkoon na ci ñuy demoon finale coupe d'afrique 2002 te en plus tamit ñu demoon ba quart de finale coupe du monde 2002 ki nga xamante moo Pape sar mom bokkoon na ci. kon tay ji ni doomam mu ngi def ay progrès yu am solo fële ci Lyon ci U17 yi nak mom mu ngi def foofu ay djego yu am solo mu nek benn défenseur central actuellement nak 17 ans la yoré mom mu ngi évoluer fële ca U17 ñi nga xamanteni ñoo di olympique de lyonnais moom di leen rappeler tamit ah woo nañ ko fële ci U17 France yi tamit d'ailleurs sax moom moo nekk foofu capitaine ci U17 français yi un défenseur très prometteur gars yi yaakaar moom ci bu baax a baax a baax même waa Lyon nag ñoom yaakaar nañu carrément ko mooy nekk future révélation ci seen centre de formation bi parce que boo xoolee booy bi ay football lu muy football c'est énorme il est très costaud ah. défensivement dafa baax en plus ak a mën a relancer ah te en plus ce duel aérien du bàyyi la plupart mom moo koy jël waa Lyon nag ñu yaakaar ne carrément que kii dina nek seen prochaine révélation ci nga xamantene jeune yu jógee fofu sen centre de formation bi nak légui nak mom nak j'espère que dinañ gis bu baax a baax a baax booy bi lu muy def ci bir terrain bi ak vidéo yi ngeen di gis ni nak mu nek un défenseur très très intéressant kon il est temps que gaay yi xol ak moma jéem ka wo ci xale yi ci ñu jeunes yi comme U17 18 yi danaka mu mën a ñëw ak ñoom parce que boo xoolee papam moom Séné ancien inter ancien international sénégalais la kon xam naa ni loolu moom dina yomb trop parce que xam képp ko xam ne papam muy loolu xam nga carrément papam dafa mës a bëgg Sénégal parce que bokkoon na ci ñu yóbbu Sénégal ba quart de finale coupe du monde bokkoon na tamit ci ñu yóbbu Sénégal ba finale coupe d'Afrique ko xamal ni kii moom doomam moom ay mbiram loolu dina yomb trop. kon gars yi gis ngeen Mamadou Sarr c'est un jeune très prometteur sax ba tax na des fois waale dañ koy classé dañ koy surclassé ci U19 yi seen U19 yi des fois dañ koy surclassé foofu ndaxte jeune bi dafa mën football lool lool lool lool lool. gars yi tey lii laa indiloon ko information ah gars yi bu fekkee genre vidéo yi neex na la ñu lay ne bu fàtte abonné wu activer cloche notification bi comme ça bu ñu génneewaatee benn vidéo nga bañ kaa loupé te en plus ñu mën a jàppale chaîne bi mu dem ci kaw ci kanam ok bu leen fàtte tamit abonné waa ah, di aimé tamit vidéo yi. ok di lay jox dig daje ci kanam ak ay yeneen vidéo ba bàyyi la ngeen jëkkal vidéo bi jaa ngeen def gars yi ci kanam